téeméeri jàngalekat ak fukk ak juróom-benn yoo xam ne ci daara yu kawe yi lañ nekk nee nañu ni njiitu réew Macky Sall yàkkamte ci jël ndogal bile jaaxal na leen lool ndax nag.

am na la mu prévoir ay yoon yoo xam ne war nañu fa mën a jaar ngir saafar jafe-jafe yi te kenn du puus élection yi intellectuel yi di ci xamle ne crise dëgg bi ci nar a am naka mu di lii nar a jógee ci ndogal mii di njiiti réew Macky Sall jël ngir tuxal élection yi collectif bi yokk ci ne candidate mi nga xam ne nee nañu am na double nationalité te nga xam ne méngowul dara ak article 28 bu ndey charte réewu Sénégal loolu sax warul tax ba ñuy tuxal élection présidentielle ndax si seen gis-gis conseil constitutionnel amoon nañu seen sañ génne ko ci liste candidat yi nga xam ni ñoom ñoo waroon bokk ci jongante bile wala sax procureur ubbi ab information judiciaire topp ko ci yoon comme nañu ko defee ci ñaari mbir yi yëpp nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci intellectuel yi le conseil constitutionnel am na lu ko yoon may ngir mu génnee ñu ci yooyu jafe-jafe ba tax kon waroon nañu bañ a tuxal présidentielle bi nga xam ne ci ñaari fukki fan ak juróom ci weeru février gi ñu nekk lañ ko waroon amal.